ci un million cinq cent enfants yi nga xam ne nee nañ ils sont en dehors du système scolaire lu tax ma ne donte tëj nañ ñu fukki fan dañ ci am mbégte mooy jàngalekat yooyu ak ànd bi nga xam ne ñun waa FRAPP ànd nañ ci ak ñoom am nañ ci ñaari ndam benn bi mooy 32 enseignants ñu leen di woowee animateur polyvalent des cases des tout-petits ñoo fi nekkoon ci 32 yi recruté nañ am fanweer wala lu jege fanweer ci enseignants des classes passerelles ñoo nekkoon fii ñenn ñi sax entamé woon grève de la faim yaa ngi ni fàttaliku bés bu ñu waxee ne dañuy marche jóge fii dem ministère de l'éducation nationale ca ñaajo ñu jàpp leen fii ci koñ bi dix yi nga xam ne jàpp nañ leen bés boobu ak benn membre FRAPP muy Aliou Gérard Koïta mi nga xam ne moo jiite FRAPP département bu Kolda dix yooyu nee nañ boole nañ leen ci formation bi. donc jamono yi may wax ak yéen 31 animateurs polyvalents euh, des cases des tout petits muy jàngalekat yooyu di jàngal tout tànk yi 31 yi ñu ngi Kolda di subir formation ngir formation boobu ngir formation boobu euh, buñ ci paree ñu am statut benn ñaareel bi ñu commencé di fayeeku loolu lan lay wane askan wi loolu lan lay wane ñun doomu Sénégal mooy li waa FRAPP di tàmm di wax seule la lutte libère métti na nag yombul ndaxte yenn saa yi nga am si garde à vue yenn saa yi nga mëkk si grenade lacrymogène yenn saa yi nga dem ñaaniñ ñu la fay toroxal ay nervi di la fa agressé yenn saa yi nga dem Médina Wandifa ngir jàppale collectif de défense des intérêts de Médina Wandifa yiy xeex spoliation foncière foofu ci Médina Wandifa ngeen di def conférence ñu sànni leen xeer ba ay gendarme di di escorter pour ngeen mun génn ca dëkk ba yenn saa yi ñu dóor leen ay liif yenn saay ñu agressé la physiquement c'est l'occasion pour man également waaw ma wax leen ne am na loo xam ne euh, def nañ ma ko ci mbir mi boo xam ne maa ngi koy naxarlu daanaka lépp lay naxarlu ndaxte ba tey jii nii je suis choqué, indigné, même si je ne suis pas surpris, que dans un pays comme le Sénégal, dans mon pays, au XXIe siècle, que je sois arrêté, gardé à vue, emprisonné, jugé pour avoir donné mon opinion. diggante Vélingara ak Tambacounda cent kilomètres plus précisément quatre vingt kilomètres biñ ci euh, auto gendarme yi ma yi nga xam ne ñoo ma jëlee Koungkané balaa ñu may dugal ci auto police des frontières dama ñëw ñu ne ma sa loxo ma joxe sama loxo ñu kepp ko ak ak menotte bon ma ne garaawul c'est pas grave ma naan déet ñu ne ma ci ginnaaw ma ne leen déet bu leen ma bu leen ma mënooti ci ginnaaw parce que ku xam mënooti ci ginnaaw xam nga ne dafa metti donc dañ ma mënatu ci ginnaaw ma ne leen mais yéen même Bougazeli du ngeen ko mënatu ci ginnaaw même Cheikh Oumar Anne du ngeen ko mënatu ci ginnaaw même Mbaye Prodac Niang du ko mënatu ci ginnaaw luubalkatu alalu askan wi du ngeen leen mënatu ci ginnaaw donc man lan moo war a tax ngeen mënatu ma ci ginnaaw ba pare ma war a def cent kilomètres cent kilomètres yi ma def diggante euh, Vélingara ak Tambacounda mooy cent kilomètres yi gën a métti yi ma def sama àddina ndaxte déjà mënatu ci ginnaaw pour ñi nga xam ne dañ leen mës euh, mës nañ leen mënatu ci ginnaaw xam nañ ni mu safee mais en plus boo ci boolee nga xam ne goudron bi goudron bi euh, nooyul donc oto bi day daal di tëpp ñu mënatale ni nii ci ginnaaw kenn toog sa fii kenn toog sa fii sës la rëkk yow tu presque assis sur tes propres yow daanaka da nga toog ci say loxo ak ci mënati sur cent kilomètres Euh, depuis boobu sama sama baaraam bi maa ngi sentir ça fait plus de deux semaines ça fait allez bientôt un mois je crois d'accord maa ngi sentir mel ni sama loxo bi mu ngi crampe depuis boobu sama sama pouce sama pouce droit xam naa ne bu continuer nii un jour je perdrai l'usage de mai mains ou je perdrai l'usage d'un de mes loolu daf may indi ma gën a interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy les agents des forces de défense et de sécurité man li ñu ma def mënoote ma ci cent kilomètres boo moytul noonu la ñuy defee ñeneen sénégalais ba tax ñuy dee ci commissariat yi wala ñuy dee avant ñuy egg commissariat parce que xamuñu ndax man dama as xamuñu ndax man mus naa def AVC xamuñu ndax man am naa problème respiratoire xamuñu ndax man mus naa am problème boo xam ne. le fait d'être menotté sur cent kilomètres mun na jur inconfort boo xam ne d'accord mun naa si def choc donc damay interpeller pas ñëpp nag parce que gendarme yëpp bonuñu policier yëpp bonuñu militaire yëpp bonuñu agent euh, des eaux et forêts yëpp bonuñu waaye am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne ni ñuy doxalee moo tax ay Pape Sarr des commissariat bu Thiaroye moo tax Elimane Touré dee commissariat bu port moo tax euh, Seck Ndiaye ñu rey ko ci néegam dóor ko ba mu dee et cetera et cetera donc nañu xoolaat ñun policier du Sénégal ñun gendarme du Sénégal ñun militaire du Sénégal ñun douanier du Sénégal ci tënk ñun agent de forces de défense et de sécurité nañu xoolaat naka la traité citoyen sénégal yi rawatina citoyen sénégalais boo xam ne jamono ji ñu koy jàpp di ko menotté sur cent kilomètres il était encore présumé innocent justice bu Sénégal nee na daf ma condamné euh, trois mois de sursis ba pare fay deux cent mille francs CFA samay avocat lim naa leen sànq ma leen di gërëmaat dugal nañ appel donc li ma bëgg Sénégalais yi xam